Abou Ndiaye Vaisselle moo leen di may seen sketch buuru kër liberté, la liberté. Ay, güey, liberté, güey. Yo no.

soo leen jàppalewul si kër bi soo leen jàppalewul si kër gi ñu ngi def dara lu baax dara lu baax lu baax da ngay gis yoo xam ne leen toppee kay dañuy dee mënuñu dimbee na ah. hana dangai tolu kukaye gbọ̀kọ̀wá jẹ sẹ́yẹrẹ mọ̀ èyí ṣe àdúgbò ládùúgbò wà. wọ́n ní Oh, what do I? Huh? Eh. eh, why some oh, what? Jacob xaaral ma wax ndeel fan la il faut di borom la faaw ndeel a gis lii buubi buubi neex na dañu ko bale am yow doogom doogom mu lay wax mu ngi fii naka ko amul tooy amul wax Umulitoa umulingua chakacha Mungu nakafidi pofi lii soo tegul woon sa bët fi doy gëm toujours bu waxee nga wax cakas ci douche bi lay def def ko si kër bi lay def dokaa loolu moo tax nga dawloo ma daw lu metti ma ñëw fidd ba ñëw ba fii amoo loo may wan du dul kii eh, génneel sa kanam bi dina làq kanamam yow kii yow yaa ko tooñ yaa ko xañ indépendance am boo ko bàyyi woon muy dugg ci duus bi doo ko fekk fii muy toog tey tey yaa ko fekk place am ak yow damaa xamul lan ngay def fii ak sarata bii ana booy séeréer booy séeréer mi ngi néegam dafa mel ni yaramam neexul ma ne ma ma ma defar kër bi comme ça war naa tey may bale rek jël bale bi mbalit bi yóbbu fële ma wàññi ko fii rek ma fekk ko yow yaay naka mbaam fii nga koy defee sali fii laa ko defee fii laa ko yàgg defee fii laa ko yàgg defee am na ma ko seetal. waaw baal xale ñu nekk ci jàmm baal kii. léegi nag ndeel nag kii nag da nga koy jóg indépendance boo xam ne koñ bu naka rek mu toog foofu rek def lu mu bugg a def foofu. mënu koo am ci duus yi du fa la koy defee feneen. mi ngi toog potam bàyyi ko. léegi yow yaa bàyyi xale ñu nekk si. waaw léegi su ngeen paree woowal caat yéen ñëpp ngeen ñëw ñu di ngeen fekk ma ci saal bi ma def réunion ak yéen. man maa téye woon duus bi ñëw leen rek ñu def réunion ñëw leen ñu def waaw ah, sa réunion yu bari war nga koo bàyyi ngeen ku nekk ensemble. te ñëw leen rek lii lan la yéen a ngi jàmm la ñëw leen ñu def réunion dum noomu ana laa woon lii nekkul yoon yi ma ko jëma butal ak ku ko may jabar mu wax doom mu ngi ni muy naxa di def li muy def c'est pas normal léegi yow magum jëm tool nii di war a dugg ci douche bi ni nii ñëpp ngay ko app heure pour lan la waaw léegi ñëw leen réunion pare naa mu ni pare naa léegi boo pare léegi yow dama nga ba xale bi Thiès noo toogee tey yoroo lool kii ba. damaa bett. affaire yaa ma bett. man kenn moom. daa faale kilifa dara. kenn moomu kër yi bu ñoree rek wadd. day bette daa waaw. yow laa ah sax la pët. ban lu ma ciy def di mel ko amul douche. da ngay yàq. eh man lu ma sama roon dégg gaawal def li ngay def laa wax yow laa xaar. waaw ah, incha allah. doo dem na waa bëggoo gis sama affaire xamal. ah de laa yàlla si kub bu mag. mu ah, lii mooy laa bu koy xool tax di xool. laa boo defee doo ko gisee. ah nga dëgg di ñoom seen bés bi booy. We dangay xool ba xam lu doore nga def wala yu oraa foofu fa gaaye xobal oui comme fi mu toll nii dañu a changé quelques actifs kan kon ba la commencé

Leela waxal si lii bala moom léegi-léegi. waaw du kii moo toog ci pot bii léegi wala du bii. moom la raxas ko benn set. Eh, raxas ak lan li ñu toog nga jël sa pot bi ŋàpp ko indaale di mel ni ku ŋàpp lu baax. Eh, lii na eh, suuf. wax. ci suuf. suuf wàcceel ci suuf war a tubaabe dangaa war tubaabe. Ah. cakas cakas. Jaxas yow da ñu bugg a yàpp wala di bugg a ñu bugg a toog si suñu boppay wala di nga may jaay réew wala di may jaay MD poli lan ngay jaay ma lan ngay jaay ma Jaxas man looy jaay ma day jënd ko looy jaay ma rek day jënd ko voilà.

article Tchad Tchad léegi nangu naa say copain yi <laughs> say copain yi ñuy ñëw kon nag eh par sou lay ñëw article numéro deux waaye damaa waxoon kër bi casa cakas ak séeréer douche bi ni ngeen koy def jaaduwul ba ma wax ne ne leen non douche bi du ngeen dem foofu benn yoon journée bi journée kii wala deux fois benn yoon ah. léegi def naa ko laisser aller. alhamdulilah. léegi douche bi dugg leen comme tu veux. comme tu veux débarrassé wu si pot bi. léegi yow Ndéla lan nga gis ci article do article yooyu. li nga wax rafetlu naa ko torop torop torop mais benn rek moo ma ci gën a intéressé. gis nga kii sama karawu ba la. na la yemalewu ma ko lenn ci sama àdduna. damaa yaakaaroon na boo ñëwee rek ma jàppale ci yar mais yow jàppale woo ma. caat mi jàng laa ko sant ak toog sama wet. waaw loolu laa ko def ma. lu ci copain di wut wax ji lan la ci ay copain di wut. copain mooy xaritam yi muy àndal yi muy àndal yi copain yi muy àndal yi fii ci kër gi caa tey guma lool. man sa sa sa yaa waaw ñooñu laay waxal xanaa ñaar ñaar ñii. waaw ñooñu ñooñu di ñëw foofu. ñooñu ay copain la. Ah, la ñooñu. waaye copine la wax waaye. ah eh, topp ma ay kon jigéen mooy naka copine jigéene copine góor ah, mooy góor mooy nekk copain. am na benn xarit brésilien buy ñëw foofu dafa def booy bu demoon armée bi waaw. lan la góor la wala jigéen. te dafa kooku boo ko gisee. maa ngi jégalu nag ci kanu gi. waaw ndax wax dëgg yàlla boobu maa ngi ne boobu ba léegi maa ngi ne cel ni cere ju góor mooñ waxuma kenn waxul léegi li ma gën a farataal ba gën maa farataal mooy nañu ndog ci ndogu bi laay wax ak yow ndax lekkatuma ba suur naanatuma ba mandi

boo ma ci mënta le kon douche bi ma ci a dem. objection bu ma nekkoon ma ci a ah. objection. rejeté. objection. rejeté. yow ajaat nga lii yàlla. ci C'est bi moom yàlla suñu borom de que ni naa c'est ah pët bi yàlla dogal na moom. adapté naa ko ba pare. muy sama xol laa ko def ndax ndax gis naa njëriñ bi pët bi am. waaw oh, am na njëriñ moom. pët bi même bu nekkoon dina ma bàyyi muy dugaat si douche bi sax damay ut bu ko gën a mag waaye du ma ut bu ko gën a ndax. waaw eh, eh, parce que xam nga la nit dangay gore. waaw li ko yor mu lay suturaal ba dara dul hmm? dara. bu demee ba ba dëkk bi neex. bu ko bàyyi de bok ko. sere eh, sere ah. dama lay waxal avant ngeen di gis li le man ma tejon tous bi pour yeen du ngeen dem moo ngeen wut pot bi bayina tous bi pot bi dootul tegawaalu ci kër bi un point un un terrain. pot bi dama ka adapté. legui mo min na pot bi adapté na ko kay tulé den si man munu ma puub ci douche bi la munu mën ci puub. su xol sa loxo nga jël ko dugg si biir pot bi. raxas naa ko ci ne yegg na niveau ba nga xam ne yow bu ñuy lekkati dañ lay ber. amul sax ñu wax c'est ça. mañ booy may beree ma beru ndax xam nga nit ku ci nekk ba ngay ñëw ñëwoo groupe yow kese yaa ñëw. ah, ah loolu la. yaa la ber ëllëg. waaw léegi rek eh. silaas oh. ah, ah. oh, indi loxo bi. cakas waxuma wax boobu dinaa xam ba xam cakas yow yaa moom kër bi wala ñu ñoo moom man maay moom kër bi maay borom kër bi. man a am ndee la. juum nga juum nga. waaw maa maay sa jëkkër yaay moo tax moom moom kenn bi voilà c'est ça léegi pot bi bu ko gisaat ak yow. ah ma bi bu mag kay laa si ut yaatu ah. te xóot. naa ne léegi day rembe xaw ma am bu gën a xóot. eh Odia si wala li ma la wax na ko lay ndogu li nañ ko nañ ko nañ ko yoxé eh ndogu bi mënu gul wañi mënu gul yok mburu bi allez kon dama xaru kon dina xaru geej bi mu ngi fofu eh, sori yow tay ñu eh, la wutal goof yo di la ko ruyal ngay naan ndax nit ñi di mëna suur am nga melu ka ngay mel ko bokk alburu mbeur ni baña la meuk sa bop am na bëpp lek la mangé mangé ko amuñu benn jom ñu mel ne ay fecckatu bale nii. Jaxas Rodolfo. Pikine marché lo gat gat dig dig dig nga Abu Gesner ci Pikine Abu Gesner Moy jaay tissu yu bax ya fofu nga xam mom modi ci wetu pàkk ginar waye mu daal ubbi wat benen ci wetu jaaykatu yap yi benen boutique bo xam ni ku fa ñew andandok mbekté waye mu amaat benen place Cambérène 2 ci koñu Baboy fofu nak dafa am boutique vessel lo nam ci tegle bool chafing disc 47 pièces en porcelaine luxe ay verre boisson pour teral say gan ay tasse en porcelaine ay bol en porcelaine service 18 pack service sans pack table de luxe ak micro-ondes ah Abou Ndiaye Jesner gannaaw vaisselle bi am it cosmétique lola Françoise Bodon de qualité ndax yep duñu qualité laaj ko Abou Ndiaye wala nga bëgg poudre wala nga bëgg fond de teint wala nga bëgg QI plus wala ngay wut HT26 magique égyptienne Carmex wala pure wala Fair White wala White Express boo ci bëgg ah bio bi nga moi moy tax nga leer nañ Abou Ndiaye Cambérène 2 ci wetu diano ak fast food boy. 77 700 94 64 58 le 76 839 90 21